merci beaucoup euh, ñu ngi doore suñu wax ci dalal euh, monsieur le vice-président ci dëkkam niñ ko waxee rek te di faral di répéter Sénégal ak Gambie ben dëkk la euh, démb bi ma koy dalal ci hôtelam daf mo ne su won protocole bi sax ñun buñu génné fi rek gënu leen ñu miin dakaar mën naa doxi samay soxla kon réew yi ñaari réew yi benn la ñoo bokk ndey ñoo bokk baay euh, li fi jaar ba tàqali ko def ko ñaari réew ñun ñëpp xam ko waaye du loo xam ne lu mën a tënk réew yi la moo tax ci turu son excellence monsieur le président de la république euh, M. Bassirou Diomaye Fay ñu leen dalal yow ak sa délégation bi yëpp di wax ni da ngeen ñu defal teranga bi ngeen bàyyee seen yite ñëw seet si ñu ànd nag ak délégation bu takku ndax ànd nga ak lu mat ñett wala ñeent ci say ministre ak yeneen collaborateur fait def visite 48 heures pour ñu passer en revue la nga coopération diggante Gambie ak Sénégal Nous euh, xam ni la vision du président Diomaye Faye vision panafricaniste la la ñu gëm mooy faw rek ñu dajale doole ba lépp loo xam ne day féewale réewu Afrique yi ñun mënuñ cee ànd te lépp loo xam ne li nga xam ne moom lañu bokk ci ay ensemble sous-régionaux dina ko tas ñu it mënuñu cee ànd loolu tax bi mu toogee ba léegi gis ngeen jéego yi muy dox ngir li ñu bokk ci CEDEAO ñu fexe ba téye ko bañ mu tasaaroo kuy wax nag kuy essayer dajale nag li la war a njëkk a yitteel mooy sa dëkkandoo bi la gën a jege ndax ku mënul ànd ak sa dëkkandoo mënoo ànd ak ki gën a sori dëkkandoo bi gën a jege senegal nag defe naa mooy Gambie loolu moom yàllaa ko def moo tax faw rek daje yu mel ni di am ñu koy gën a jegeel sax di gën a waxtaan donte nag coopération bi dëgër na. loolu feeñ na ci waxtaan bi dëgër na ci wàllu institution ndax mooy coopération bi gën a élaboré ci niveau cop euh, niveau institutionnel yi nga xam ne teg nañ ko depuis kuréel bi nga xam ne mooy dajale ñaari président de la république yi kuréel bi nga xam ne mooy dajale ñaari premier ministre yi wala premier ministre bi ak vice président bi ba ci commission yi nga xam ne ñoom ñooy saytu accord yi ñuy def defena amul ben coopération bu Sénégal séq ak kenen bu gëna élaborer bi kon lolu woné na ni diggante bi dëgër na ba nopi wayé dañuy saa su di gorgol diko gëna défarat diko gëna fédri ndax sank vice président waxé ñom duñu noppalu kon ñoo nelaw ba yandor saa su rek nañu gën di defar di gëna waxtaan ci waxtaan yooyu nag lañu càmbar poñ yi nga xam ne yitteel nañu yitteel na suñu naataango Gàmbi yéen ñëpp yàgg ngeen dégg ñuy wax bi gouvernement bi toogee ba léegi euh, gis ngeen lu bari ci communiqué conseil des ministres ñuy wax suñu yitte ci euh, àll bi àllu Casamance bi particulièrement nga xam ne ñu ngay dagg garab yi di euh all bi ba nga xamne ne ci jogul rek mën na am dina yak lu bari fofu nak dañ ko sekk ak suñuy tanggo gambi ndax ci frontière ba la motax am solo parce que pour ñu mën ko régler faaw rek ñu and ci leunkelo ci ak suñu mbokk gambi. lol nak ay accord amun na ci kenn ku ne jël na ci ay résolution dañuy góor rek ba gën koo far ba gën koo dëgëral ba nga xam ne patrouille mixte yi nga xam dañ ko war a def diggante suñu armee ak armée gambien diggante suñuy service muy eaux et muy protection civile ak ñeneen ñeneen ñu ànd ceeg suñu mbokk Gàmbi ñu gën koo dëgëral wax nañ lu bëri ci lu jëm ci wàllu euh, déplacement yi transport beeg ñoom seen am nañu ci jot a jëmale ko ci suñu mbokk gambien yi te xam naa ni euh, dinañ ci def kéem kattan pour euh, solutionner problème yooyu wax nañ lu bëri ci li jëm ci énergie tamit rawatina électricité bi ak euh, nu ñuy échanger suñu expérience ba nga xam ni li ñu dëgmal muy beneen compact bu war a ñëw ci MCA bi ñu war koo dugal cette fois ci muy compact régional bi ñu fexé ba ci ak suñu mbokk Gàmbi mu doon lo xamné luy euh, luy ëmb lépp la loolu it am nay tektal liñ ci joxé pour ñu liggéey ci ci walu institution yi wax nañ di jëm ci secrétariat permanent bi nga xamné mom moom wara doxal deug deug mbir mi te ñu gisoon ni xawon na taxaw te liko ko waraloon bëri na am na ci ay aspect matériel am aspect financier am yeneen aspect waaye gëm naa ni bu ñu jógee ci réunion bi yooyu yëpp bu soobee yàlla dina jeex ba ñu mun koo joxaat gëddam dooleel ko lañ ci war a def ñun Sénégal bokk na ci ñi ñu war a nommer te nommer wuñ ko woon boobu ba léegi muy ñetti nit bu soobee yàlla nañ ci jël matuwaay yëpp ba nome leen ni mu gën a gaawee yi nga xam ne siège bi Sénégal la war a nekk ñu def ci liñ ci war a def si suñu wàll wax nañ ci wàllu napp gi. muy lu am solo ndax frontière moom yàlla daf ñoo may ñu am ak Gambie frontière teres frontière maritime ak frontière aérienne donc wax nañu ci lu jëm ci napp gi muy domaine boo xam ne it coopération bi dëgër na lool accord yu ñu signé am na te ministre des pêches yi fi nekk wane nañ ni ñu ngi ciy liggéey lu bëri kon loolu it ñu rafetlu ko wax nañ lu bëri nag ci lu jëm ci formation à coopération ndax bëri lo xamné dañ koy partager ak suñu mbokk Gambie ci walu formation mo xam ci walu formation militaire euh, walu formation ci domaine pêche ak yenen ak yenen loolu jël nañu résolution gën ko yaatal euh, yok ko bu baaxa baaxa baax parce que bokku na ci li gëna dëgeural digënté ñaari réew yi yi nga xam ne nag dafa jëm ci wàllu kaaraange am na lu ci suñu mbokk bi jukki ci li nga xam ne seeni yitte la dégg nañ ko te soobee yàlla dinañ ci andi ay solution yoo xam ne dinañ ci teg seen bët ñoom ñu nit am na lu ñu yëkkati te li ci ëpp mu ngi jëm ci euh, li ma wax léegi ci bois bi ak yeneen yu mel noonu ñoom it ñu jël ci ay résolution ci gàttal daal dellu rafetlu coopération bi ndax diggante élection son excellence le président Bassirou Diomaye ak Légui, euh, am na yu bëri yu fi xew yoo ci coopération bi dafa wone euh, euh, solo bi mu am bokk na ci son excellence président Adama Baro ñëw na Dakar. son excellence président Diomaye dem na Banjul ñaar yoon ci visite d'état ak ci cadre OCI bi waaye commission yu bëri surtout en matière militaire dañu leen ci diggante bi bii Ziguinchor Banjul Ndakaaru te benn bu nekk ñu ngi ko sanctionné ak ay accords yu am solo ci ni ñuy gën a lënkaloo pour saytu kaaraange Sénégal ak Gambie su ñuy lënkaloo ci wàllu échange d'information waaye di def ay patrouille mixte ba gën a mën a saytu lépp luy jëm ci sécurité ñaari réew yi kon lu ñuy rafetlu la di gërëm encore une fois euh, son excellence monsieur le vice-président di ko sant euh, di ko wax tamit ni bu soobee yàlla comme nim ñu ko ñaanee ci invitation am euh, ci lu ñuy programme ci lu néew incha allah dinañu ñëw ziar si leen Gambie ñu gën a yaatal liggéey bi gën ko xootal en di leen gërëm yéen ak seen délégation yëpp salaamaaleykum wa rahmatullah